salaam mbokk yi safam sa tëtt bi maa ngi bëgg ñëpp di ziar ñëpp ak tërëm gën a fas yéene tey bi tombé le samedi 31 août mercato bi tëj na si yenn championnat yi rawatina championnat yu gën foofu sa Europe dañ koy commencé ak yenn transfert yi xam ne officiel lañu officiel Federico Chiesa jóge Juventus signé ak Liverpool leneen lu officiel mu yaa transferu Sékou Koné jóge club bi di Guidars FC signé ak Manchester si beneen côté bi ñii di waa Arsenal signé nañu kii di Neto nekk gardien pour remplacer Ronald Ramsdale ñu ko jëlee si bi di Bournemouth officiel gardien bi di Kepa Arrizabalaga waa Chelsea abale nañ ko si bi di Bournemouth Romelu Lukaku jóge na Chelsea signé ak Napoli transfert mi dikkee Napoli 30 millions ak 15 millions bonus signé nañ ko lu toll ak ñetti atu contrat Scott McTominay jóge na Manchester United Tammy Abraham waa AS Roma abale nañ ko si club bi di Milan si beneen côté bi waa Milan abale nañ seen joueur bi di Salemaker si club bi di AS Roma Real Madrid joxe nañu seen ñaari joueur muy Alvaro Rodriguez abale nañ ko si club bi di Getafe beneen joueur bi nga xam ne Real Madrid abale nañ ko muy René Jesus kon jóge na Real ñu abale ko si club bi di Grenade officiel war na Bernat jóge na sa Villarreal sa championnat Espagne Nil la Mbappé signé na ak club bi di Olympique de Marseille Stefan Bajsetic bu Liverpool si club bi di Salzbourg la mujjee signé Liverpool ñoo ko fa abale Barcelone ñu ngi woon si yeddu si Salzbourg la jour bi mujjee signé. Wout Weghorst jóge na Berlin si ñàkk club bi di Ajax Amsterdam officiel Villarreal abale nañ seen jour bi di Danjuma si club bi di Girona. officiel Manuel Ugarte jóge na Paris Saint-Germain si ñàkk Manchester United Jadon Sancho jóge na Manchester United ñu joxe ko si club bi di Chelsea. dañ ko faa abale doomu senegal bi Didier Bamba Dieng jóge na Lorient ñu abale ko foofu sa Angers foofu sa championnat France ba léegi Samuel Lagigo jóge na Olympique de Marseille signé ak club bi Didier Lazio de Rome foofu sa championnat Italie ñettaatu contrat la fa signé officiel Lyon recruté nañu kii di Wilfried Zaha Galatasaray ñoo leen ko abal Eddie Nketiah jóge na Arsenal signé juróomeetu contrat ak club bi Didier Crystal Palace officiel Raheem Sterling signé na Arsenal doomu Côte d'Ivoire bi di ya Sébastien Haller waa Borussia Dortmund abale nañ ko si bi di ya Leganés sa championnat Espagne Carlos Soler jóge na Paris saint ñu abale ko si bi di ya West Ham ñuy jàll championnat Arabie Saoudite ñoom seen mercato bi tëjagul kii di Ivan Toney lépp mën na day jóge Brentford dem ma ak Al Ahly bi dina dikkee Al Ahly 41 Victor Osimhen bi nga xam ne moom tamit Al ñu ngi doon waxtaan ak moom Al su fekkee amul benn club bu nekk foofu sa championnat Arabie Saoudite wala yeneen championnat yi nga xam ne seen mercato tëjagul yu signé kii di Victor Osimhen foofu Napoli lay des lépp mën na kii di Mohamed Simakan jóge na Leipzig day dem signé yi si club bi Al Nassr foofu championnat Arabie Saoudite déggoo bi nga xam ne amoon na si diggante Paris Saint-Germain ak Al Nassr pour transfert Milan Skriniar foofu sa Al Nassr di Milan Skriniar moom naka mu mujjee waxtaan ba déggu am na si ya diggante Sergio Ramos ak club bi di Al Oroba nekk waaye Real Madrid ñoo mujjee bloqué transfert ba foofu lay mujjee des déggoo am na si diggante Fiorentina ak Fenerbahçe ngir ñu abal seen bi di euh, Sofiane Amrabat si club bi di euh, Fenerbahçe foofu sa championnat turki ñu jeexal ak doomu Sénégal bi di Ismaïla Jacobs déggoo am na si diggante Monaco ak Galatasaray pour transfert u Ismaïla Jacobs foofu sa Galatasaray dañ ko fay abale kon championnat turki seen mercato tëjagul te dinañ matal transfert Ismaïla Jacobs lu yàggul la dara foofu yi